waxtaan leen ak moom Ousmane Sonko amul lu muy def amul lu muy dindi Ousmane Sonko jàmbala ma sa tàllal loxo Ousmane Sonko jàmbala ma sa bëgg pourtant Macky Sall xamul loolu mais Macky Sall Ousmane Sonko bu nekkoon président de la république li nga yaakaar ne moom lay def ci yow Ousmane du ko def donte kon nag am na loo xam ne moomu ko waaye nag am na loo xam ne mën na ko waxtaan bis bu nekkoon président de la république du ab dof borom xel la jullit la waxkatu dëgg defkatu dëgg la. laahi buñ ci baal kenn. Sénégal dana changé mais lu fi waay def billaahi daaj la ko fay bu benn sëriñ nag taaw xaar ba réew mi changé ngay wax affaire réew jàmm ci gën nañ ko juboo nañ ko waxtaanee gis nga loolu yàq réew mi yi am sama mbokki sëriñ si ñu bëri ne muut noppi buñ demee nag ba tey fayu des ñu commencé génn seen làmmiñ di wax loolu nag bu ko kenn nangu benn sénégalais bu mu ko nangu lu fi waaye soom bi nañ la ko taajal nga jël kund naan ko ba mu jeex tàkk lu fi waaye bi nag laa wax nañ la ko taajal nga naan ko ba mu jeex parce que nag fi mu nekk fayu dafa dagan de yàlla ne buñ la tooñee yàlla wax de buñ la am nga droit fayu ba tolloog lañ la tooñ te bul ko dépassé kooku ndigalu yàlla la ñun nag ba ñu yàqee dëkk bi dafa yàgg du tey ba ñu waxee rek naan dig naa la aljanaak sëriñ bi nee na mbiri sotti naag aljana joo xam ne xamoo fu mu ne aljana yàlla dong mooy choisir ki ko yeewee mu jox ko ko xataa rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam demagul àjjana moom naka la ñu yóbboo nit àjjana naxa yi dafa yàgg naxa yi dafa yàgg nañu bàyyi réew mi mu dal te ñuy wax lii xew lépp suñ càggante la ñun sëriñ si ñoo ko def Macky Sall benn Macky Sall la bëgguñ góor jigéen góor a góor guy sëy bëgguñu ko day joxe feebar dafa salte jekkul rafetul nañ ko jëlee ci réew mi réew mi lu tax ñu ko jëlee ci réew mi mooy maam alaaji maay daf fi nekkoon di nitu yàlla maam Serigne Touba daf fi nekkoon di nitu yàlla maam Limamou Laye daf fi nekkoon di nitu yàlla maam Serigne Oly Touré président Ruril Wan ku baax wàlliyu daf fi nekkoon ragal yàlla di jàngale lislaam maam El Hadj Omar Ndaw noonu El Hadj Ama dem ci Sokone borom sara alxuraan baax na ba mu ne jëli te wanaasi xam bu nekk la ci génne waaye moom buggul woon sax di wane wu boppam ngir rek maandu. réew moomu nag lañ ne bëgguñ góor ak góor di sëy ñu ne quatre-vingt-quinze pour cent ñoo ko bañ benn Macky Sall ñëw ne du fi amee maa lànk du ma ko signé ñu ñëpp ñi di ko gis ñuy muñ rek gi muñ rek fukki at ak ñaar ñu war a moom suñ bopp tey tànn suñu président bu bees mu ne du fi am ana ñu ñun sëriñ si lan mooy suñu njëriñ lan lañ doon ci yonent bi lan lañ doon ci suñ maam yi moo tax fa xalafa min ba'dihim xalfun benn bi addaawoo salaate fa soofa yalqaw na xayya waaw fa soofa yalqaw na fa soofa yal fa soofa yalqaw na xayyan ilaa man taaba wa amana wa amila saalihan fa xalafa min ba'dihim xalfun addaawoo salaate wa tabawoo sahawaate fa soofa yalqaw na xayya fa xalafa min ba'dihim xalfun warisul kitaaba yaaxusoona xarda haasal adna wa yaquluuna su yaxfaru lana wa in yatihim haddun misloo yaaxusoohu alam yoo xas yàlla ne alam yoo xas bi saaxul kitaab bi an laa yaqulu xalalaa ila alxaq wa darasoo maa fihi wa daaru axiratu xayru lisin yattaqoona afalaa taqiloona sama xol a jeex ma juum ci début bi moo tax di ko defaraat ndax te daara ji la ñu yaroo daara ji ñu naan daara ji la ñu nàmp fi pour waaraate waaraate xewi na gis ngeen yu bëri yii li ko gën mooy wax nit ñi dëgg xaala laahu xaala rasulullah yi dafa jot nag ñi teg ko ci suuf jaxaw nit ñi wax leen dëgg yar nit ñi xaala xaala xaala xaala ba mbedd mi yëpp ay xaal la nit ñi duñ ko dégg boo waxee ba pare teg nañ ko fa nañ yar nit ñi nañ yar nit ñi ku ci yor oto di ci yoon ku ci yor welo di ko dawal nga dawal ko ci yoon waaye koo taxaw wax moom mu saaga la ndey kenn yarul kenn xaala laahu xaala rasulullah xam ne boo ci pare fàtte nga ko nee nga gëm nga yàlla waaye doo wax ku ñu rey doo ci wax ku ñu dóor doo ci wax te yonente bi ne man raa minkum munkaran fal yughayyir bi yadihi fa in lam yastati fa bi lisaanihi fa in lam yastati fa bi qalbihi wa zalika adaful iman chrétien yi waa kat Isa ibnu Mariam maa ngi leen di remercier maa ngi leen di remercier maa ngi leen di remercier depuis cardinal Thiandoum depuis ca Senghor billahi yéen def ngeen seen waruga ba mat sëkk 5 pour cent ngeen de waaye seen 5 pour cent yooyu wecc na suñ 95 pour cent parce que ñun ñu ngi ne patt rek ne nugum sol garaam bu nag firee ko di xoote nag sol garaam bu weex tal ne yuux naa xale yi toog leen bu leen xeex nañ leen dóor rek ngeen muñ bu leen rayit muñ leen bu leen dóor bale fetali itam muñ leen su leen béjee ngeen daanu muñ leen yéen jigéen ñi kuñ ci dóor tëj la kaso muñal defe nga ne loolu wax la ambulo bi ñëw bu ngoonee nga xool sa waa kër ñu ubbi ambulo bi nga dajale ko def ko sa poche yóbbu ko ci banque ba weer ko fa bu dee ne ngay xar di ni golo def ci tool noonu ngay def ci tool yow mi ko def ya golo ci tool yéen a yem yàq rek yàq li yàlla bëgg defu leen ko yàlla def leen dénk askan wi askan wi yaakaar leen te askan waa ngi dee ñu àgg dem ba ci élection yi waroon am tey ci dimanche Macky Sall na du fi am toroxal nañu. te ñun ñoo ko doon ñaan ñun ba ñaanee ñun ba ñu jigee ñaan xal yi dañ ñu may mais Macky Sall moom mayiwu dara waaye bu jigee ñu ne nañ ko teeru bu kenn yëngatu te dañ bàyyi dëkk yi fu waaye mën a nekk dafa am droit pour wate benn diine l'islam tëriwul wate ci biir dëkk benn yonent bi sallallahu alayhi wasallam doon def politique ca Medina Munawara te moo gën ñëpp nañu bàyyi di wax ne fii kenn du fii kenn du loolu amul fenn ci àdduna amul ci benn téere ku ko gis ci benn téere indi ko sallallahu alayhi wa sallam da doon def politique te madinatu al munawara te moo ñu gën loolu yëpp nag pour xeex la xeex dong la xeex population bi kese la du leneen ana fan ngeen gisee ci benn téere alquran mu wax ne xubal watani minal imaan xanaa ko jàng na ko xubal watani minal nga war a changer sa président boo xam ne du tere lu bon nga bëgg a jël sa carte pour wate xeexoo rayoo te yoo kër ma taxaw ne du fi am fuñ ko teg yàlla mere nañu rasulullahi mere nañu suñu kilifaay diine yu baax yi mere nañu parce que li ñu wax teguñu ko fenn amul benn masala amul benn hadis même kilifaay diine yu baax yi wayuñ ko fenn binduñ ko fenn nañu bàyyi nit ñi ñu liibar nañu bàyyi nit ñi ñu liibar yàlla mi moom doomu aadama yi est-ce ñi naan sàngara rey na leen est-ce que ñi sàcc rey na leen est-ce que ñi njàll rey na leen est-ce que ñu àddi yàlla rey na leen yàlla moom nit ñi yëpp am yërmande kii di naan sàngara ba daanu ci suuf kii di rey nit kii di sàcc kii di njaalo yàlla si lépp na patt di seetaan yow nit kese nga ne fii kenn du def lii fii kenn du def lii fii kenn def lii loolu mooy lan foo ko teg tegoo ko ci benn téere tegoo ko ci benn xam-xam du benn masala du benn woyu benn sëriñ ma ne bu ñu yàq suñ bopp il faut dëgg jëpp laa hawla wala quwwata illa billahi alil asim ñu waroon a wate changé suñu président bu bees Macky Sall ne du fi am ngeen Demba Touré Macky Sall woote APC mu jugee Mali ñëw juge bi jàpp ko def ko su mandat dépôt kon kay looy woote APC.